30 millions. ma ne. c' est pas trop. opposition. waaw si euh, concertation yi dafa proposé woon 10 millions. le pouvoir à ses alliés ont proposé 20 millions. gars yi d' accord ñu ñu ne Ablaye Wade. Macky Ablaye euh, Macky na ngeen ma baal. Macky nekk fii. Macky ajouté bi 10 millions yi ak 20 millions muy 30 mu divisé ko par deux ku ci nekk perte nga kii. ku ci nekk perte na dix millions c'est équitable on a fait la moyenne des propositions c'est comme ça que ça se passe pour yow daal bii daal moo gën parrainage bi filtre bi moo gën quoi ah filtre bi moo gën parrainage bi daal selon vous bien sûr filtre bi sax damay wax dama bëgg wax ne les aventuriers ah bëgg ñëw rek bëgg am tur ñëw rek ne candidat la dafa am ñu bëgg am tur kon ah dafa am ñoo xam ne dañu bëgg ñëw pour am tur ah bon fàtte nga le gars mbay Mbaye Petit Mbaye <laughs> si présidentielle <laughs> yi gis naa ko Paris mu ne dimbale lii la ma ñibbisi mënoo ñibbisi dafa leb xaalis fii def campagne amul sax euh, euh, zéro virgule zéro xaw ma lan boor yi topp ko daw na mu ngi Paris mënul ñëw Petit Mbaye saa yu ma demee mu woo ma mu ne ma dimbale ma ah. mais ko mën a dimbale parce que banque banque arabie saoudite la amel c'est pas c'est pas le Sénégal loolu la def pour wutur rek. pour wutur moo leen ci. pour wutur. d' accord mais coalition yi wax naa seen bos mais opposition bi. Hmm. nan nga gisee ñi def bi ñoom Thierno Alassane Sall ak Abdoul Mbaye fii ñoom Sonko Khalifa ak ñoom. opposition bi seen stratégie. waaw ah. xaw ma dara lu ma ci wax. ñoom ñoo xam seen stratégie. non vous êtes un acteur. Hmm? dama ne vous êtes mais je sais que la force. l'union fait la force. ñoom ñu ngi ñaayoo bëgguñu lii bëgg mais seen affaire la man toppatoo ma leen man lu ma souhaité seen affaire yi tas. lii du ay père. waaw waaw comme ñoom jubóowuñu seen biir. mais PDS fa bokk nag te PDS moom c'est votre famille. PDS sama famille la woon. non sa famille ba tey. Ablaye du ma ko weccee kenn même bu ma nekkee ak yi waaw di ko jàppale. waaw Ablaye mu ngi sama xol. waaw. yaa ngi dëgg. mais ma demee Paris avant ma feebar. téléphone naa secrétaire am bi Mamadou Ndiaye te secrétaire am boobu en 2012 lañ ko xam ab bu ñu ñàkkee suñu élection yi la ñëw jógee Dubaï xaw ma lan fexe na ba ab lay entourage am yëpp dàq na leen. kan rek moo fa ne. kan moo fexe loolu. kan Ndiaye Mamadou Ndiaye. déedéet Ndiaye Ndiaye lan la mën ci lan la mën ci. Ablaye Wade ku muy recevoir ku muy fumiste la. kan day sosal nit ñi. yaa ngi dégg buro nekkatu fa jéen nekkatu moom rek moo fa ne. te moo xam lu tax mu ne fa moom rek Ablaye Wade mag la. te alala ah, ba nga fa. mais mais Ablaye doomam mi ngi dund te Ndiaye ku baax la. nga ne. doomam mi ngi dund doomu Ablaye Wade. Ablaye mais doom mais doom ji nekkul Paris. mu ngi mu ngi fële. waaw mais li li li baay dund yëpp doom ji Karim xam na ko. nga ne. li doom li papa ji di dund yëpp. mais Karim xam na li papa ji di dund. waaw xam na ko Karim loolu neex na ko. xam na ko. waaw mais kon mais mais c'est-à-dire Mamadou Ndiaye. waaw du wax dëgg Ablaye Wade. parce que bi ma ko wooyee. ma ko dama bëgg gis Ablaye Wade ñu waxtaan ma toog bi si ëllëg mu ne ma dinaa ko ko wax tontuwuma mhm. ma woowaat ko ne ko waaw Mamadou Ndiaye lu ma la waxoon nag mu ne président Wade nee na daal corona bi vraiment mënul recevoir ndax corona bi waaye bu ñëwee Dakar léegi mu ñëw dina la woo nga ñëw ngeen waxtaan jibo ma ne ko mais Dakar corona bi fa la ëppee kon bu ñu Dakar accord damay may kii ma xam ne rek bëgguma recevoir wala Ndiaye moom ma bloqué de toute façon man Sénégal yëpp xam nañ ne maa toor wala tooru ma je ne sais pas Sénégal yëpp xam nañ ne def naa lépp pour juboo Ablaye Wade lu ne def naa ko mais nag fi mu ne ses naa nag gor la def naa lu ne jubóog moom balaa jënd àdduna mais j'ai toujours parce que ab lay fu ma fu ma li ma defal kenn defalu ma ko ma ko fàttee mukk gis nga sama kër gii gis nga photom foo dem photo ma nga fa. man gisuma photo Macky di. photo Macky. photo Ablaye Wade rek laa fi gis. waaw mais photo Ablaye Wade boo fi war a ne. ah te yow ko jàppale politiquement. mais nekkuma si partem. waaw non waaw mais bu mais kii nga bëgg kay. mais def ci kay. bu ma la yóbbu su ma nekk ba léegi nga gis photom mais si salle bi fu ñëpp di ñëw. Hmm. photo Ablaye Wade. comme gisuma Ablaye Wade je ma contente du portrait bés bu dee ma xool ko dama xool sedd jeex na. mais daal vous tenez daal en sa euh, yow daal taxaw nga pour gis ko quoi. pardon yow bëgg nga ko gis gis Ablaye Wade. bëgg naa wax dëgg yàlla. parce que ne koo xam ne defal na la lu ne man itam defal naa ko lu ne nag boo gisee mu defal ma lu ne dafa am lu ma ko defal moo tax. je suis le seul boo xam ne toog naa 12 ans. ministre chef de cabinet ba bu muy jeex alors ko changé na premier ministre changé na ay conseiller changé na lu ne mais man maa ngi toog parce que xam na lu ma ko doon njëriñ du ma ko fen te yenn saa yi bu bëggee dugg si ay affaire dama ko ci génnee ndax bu mu bëggee nommé benn femme vice présidente ma wax la ko tey musuma ko wax mu convoqué ñu man Souleymane Ndéné Ndiaye Doudou Wade Mamadou Seck Pape Diop Madické Niang mu ne ñu dama bëgg a ndaw si vice présidente. ndaw si kan la. non c'est pas la même wax turam. Ah, ñi jël parole avant man ku jël rek ne oh, oh, oh, c'est très bien c'est très bien noonu la je suis d'accord je suis d'accord je suis d'accord bu mu ñëwee si man ma ne ko d'accord ma ci. ma ne ko vice présidente surtout kii nga tànn ma ne ko d'accord ma ci. kooku PDS la woon. waaw ma ne ko d'accord ma ci fekk jox nañu liste mu ne mais man kii laa bëgg mu ne ma ne ko d'accord ma ci mu ne d'accord daal di laaj Pape Diop ne Pape Diop attention li ngay wax de parce que nee nañ ma sa sa euh, euh, nu mu tudd le Sénat bi amul njëriñ xam li ngay wax de xam dafa bañ tu vois Pape Diop tu ko ne avec son sa force olympienne mu ree mu ne ko li Pape sama mbëgg wax d'accord naa ci ma Madické moom mujj wax Thierno Madické comme avocat jóg da ko président d'accord ma ci ndax euh, c'est discriminatoire dans la constitution on ne peut pas dire que vice-présidente doit être une femme c'est anticonstitutionnel boo ko yóbboo opposition na def recours te conseil constitutionnel dina ko rejeté ñu ngi may dëgg ñu ngi dund ñoom ñaar mu daal di noppi daal di laaj Mamadou Seck président assemblée nationale mu ne ko waa dossier bi fu ma toll mu ne ko mu nga fa de mu ne ko mu ne ko ma ko noonu laa dañu sauvé Sénégal d'une vice-présidente. sa diggante Karim nag moom xanaa moom. ah su ma diggante Karim ah woowoon na ma fii waxtaan nañu ni ma téye mon tonton bëgg naa nga nekk suma conseiller naa la yónnee billet nga ñëw Dubaï ñu waxtaan. ma ne ko mënuma ñëw te ànduma ak Farba parce que ñu ñaar lañu ndaxandoo pour le même motif luy sénégalais yi di wax trahir naa ko dem ñu ne nañ seeti ak Farba Mayoro ak Aydara Silla woo ma ñu dem ci Farba Farba ne leen man tooñu ma leen bee di dem ñoom ñooñu comme ñoo ma dax ñoo war a ñëw seet si ma et puis il raison boobu Ablaye Wade da nga fii mu ne ma ke mu ne Ablaye Wade mu ngi jël otoom di dem ay nit munul munul jóg rek nee na maa ngi dem samay doom ñun ñu dàq dara léegi ma war a jóg dem du ma dem waxu ay dara la man ma ne du ma dem kii téléphoné dama bu ma d'accordoon ñu ñëw defal ma suma passeport léegi fii ambassade bi dina ñëw defal ma suma passeport ma jël avion dem fa mais mënuma dem bàyyi fi kii c'est pas possible man je suis pas entré